naa la ñun bokkuñu ci mbappat gi bokkuñu ci parenage yu ndey dikk yi mooy li xew Dakar li xew cees li xew Diourbel li xew Kaolack ñun joxewuñu région yooyu li gën a néew ci parrain la ñu fa joxe suñu fukki suñu dañ ko def ci région yi nga xam ne dafa nekk à l'intérieur mais région yooyu nekk à l'intérieur it ñëwuñu ci chef lieu yi di fa xëccoo déedéet ñun dañu dem ci gox goxaan yi ci commune rurale yi ci village yi fa la ñu dem jël ay parrain ñëw indi ko. yaakaar naa ne quatre-vingt-quatrième ou deux centième place man nee naa la man wax waxuma sax euh, nekk di wax waxi parrainage parce que jàpp naa ne stade stade boobu mu ngi sama ginnaaw man fi may xalaat mooy naka lay campagne.